Sénégal fii ma taxaw nii mooy dëkk président Mamadou jaa président Mamadou Dia ku mel ni moom bu continué woon yore Sénégal dix ans wala quinze ans day fekk Sénégal soppeeku na complètement dafa amoon gis-gis dafa amoon gis-gis bi am fit bi am fulla bi am fayda kenn yabu ko mu Sénégal jiital intérêt Sénégal waaye ñu fexeel ko waaye man mii sëñ naa taxaw nii man dëgg maay ndoono président Mamadou Dia ci yi ma bañ ci taxawaay bu ma taxaw ci xeex bu ma xeex contre Total ak ñeneen bu ngeen ma dénkee réew mi de seen géej gars yi dootu jóg nangu di def lu leen neex bu ngeen ma dénkee réew mi suuf si ñuy séddoo di ci def lu leen neex ko def seen moomeel baa doolo di sonn dina deñ wondiraaɓe sinthiou bambamɓe somi darima ɗo e sinthiou bambamɓe ɓeɗo namno le fon leydi alay saago haqqillam yaaha e président mamadou dia ganduɗa woni lasli mum wonno ko ndimako wonno sen mbi harneji men jeeɗiɗi tawat gasi sonno ko président mamadou dia en wuurno ha joni sonno accanomo o timmini annimakke sénégal tawanno sénégal hannde en jeeye he leyɗele keptinteɗe e nder aduna saabu ndiyamno ɗo doolini ɗo nanguini ɗo leydi moƴƴirini ɗo barkindi kono peeje ganduɗa e andima président mamadou dia joguino e sénégal ɗum macci so desdi kam leydi safare ma ɓuur newade saabu mbimi ko hôpital foti ardi e dani e hakkude maaje e ferlo e nokkuji goɗɗi e nder sénégal lobbiniɗi safara foti tawde toon yimɓe onon sukaɓe sénégal sénégal no jogui pétrole sénégal no jogui or no jogui zircon mais surtout sénégal no jogui leydi ganduɗa ene ɗum foti iwde sénégal hande wondiraɓe on calminama on juuraama on jaaraama on jaaraama on jaaraama bëgg leen Thierno Alassane Sall république des valeurs ñëw na bëgg leen Thierno Alassane Sall